salaam. bon réunion bi daal xam naa ne réunion waxtaan la woon ci diggante ay kilifa euh, ki nga xam kilifa ki nga xam ne nii mooy Babacar Diagne ngànk euh, autorité de régulation bi bi war saytu lépp luy euh, jàll ci télévision yi ak yu demee noonu ndax dëppoo na ak suñuy suñuy suñuy baax ak yu demee noonu ak suñuy valeur bon réunion bi nag def nañ ko ci jàmm ak salaam waxtaan nañu tenir nañ en compte. récrimination yi nga xam ne kilifa diine yi ak couche yëpp bépp couche bu nekk société bi def nga ko ci film bi waxtaan nañ ci ak producteur bi euh, yéeneem mooy duut baaraam lépp loo xam ne rek ay ay ay ay ay déviation la yam ci société bi te euh, yaraat gën a yaraat société bi gën a conscientiser société bi ci li nga xam ne ni moo fiy xew euh, loolu moo doon yéeneem te je pense que yéene boobu rafet na bés bu nekk ñu ngi ciy waxtaan ci yeneen domaine ak ci yeneen anam ak yeneen ci xeneen xëy xëy na yeneen méthode waaye yi méthode la ci biir méthode yi eh, waxtaan nañ ci loo gis nag dina am lu ñu war a defaraat toog nañ fi waxtaan nañ ci lool li ci war a jubbanti rek nañ ko jubbanti heure yi mu war a jàll it nañ ko saytu ba nga xamee ni suy jàll du déranger kenn waaw autorité bi aussi mettre na en disposition ay réglementation yu bees yoo xam ne ni war na accompagner euh, liggéey boobu yëpp waxtaan nañ ci daal bu jiboo ci kàddu wax dëgg yàlla ci ci fu Babacar Diagne wax dëgg mi nga xam ne moo njaboote euh, ñun ñëpp moo njaboote mu defee ko ci anamu kilifa aussi wax dëgg yàlla euh, di sant ñëpp di gërëm